danoo fonk cosaan fonk aada mhm. fonk li nga xam ne fi lañ ko fekk dëgg la fekkoon ko ci suñuy maam ak suñuy baay ak sunu yaay loolu yépp nag nit ñaa ngi gën a gën a comprendre li nga xam ni mooy tamxarit mhm. ndax heure bi kenn daawul am jot lu dul taajabu mhm. tey ñu bari sax dañ ko bàyyi wax dëgg yàlla parce que tegatuñ ko ci ndax Sénégal dafa gën a xuus ci diine tout à fait Sénégal dafa gën a dugg ci diine. Mhm. réew mi dañoo gën a bëgg a xam ku yàlla. Mhm. ba tax na yu bari sax dañ ko tegandin si suuf xëy na xale yi doog a juddu. Mhm. ñoo ci am benn benn benn amour bi di ko def ndax daan nañ ko gis. seen yaay doon ko def seen maam doon ko def. moo tax ñu di ko def. waaw euh, tonton tonton Tamba. laataa nag ñu lay dugal dafa am euh, koo xamante ne ndeysaan euh, tonton Njaga la tonton Njaga bàyyi Njaga sax laa koy woowee.